gën di bëri ci déclaration de politique générale bu élimaanu joriñ bii di Ousmane Sonko mu war koo amal opposition bi ci kàddu Abdou Mbow di njiitub groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di xupp ne dinañu amal motion de censure ngir tontu kàddu yu Moustapha Sarré di joriñ bi ñu dénk kàddu gouvernement bi dañoo war a dal di xoolaat règlement intérieure bu assemblée nationale ndax nag mënula wéy di fonctionner te tënkuwul ci constitution bi loolee di gëm-gëmu Boubacar Ba di coordonnateur bu forum du justiciable amal euh, déclaration de politique général ngóora la boo xam ne dafay tax mu jëmmal programme am waaye tamit gën a dëgëral taxawaayam ci wàllu politique waaye nag dafay tax ba député yi ñu mettre leen ci seen responsabilité loolee di gis-gisu ki fi doonoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu microfinance di Zahra yan Thiam Babacar Gueye doonoon fi député moom itam xamle na ni déclaration politique général boobee lu mënul ñàkk la waaye amul dara ci wàllu yoon luy tax ñu mën a amal votu motion de censure ci bu ñuy amal déclaration bu politique générale ci élimaanu jëwriñ yi loolee ñu ngi koy fekk ci constitution bu Sénégal ci article cinquante cinq bu ñu sukkandikoo ci Alioune Guèye moom juriste en droit public bi di ci yokk ne élimaanu jëwriñ bii di Ousmane Sonko amul dara lu koy tënk ci wàllu yoon mu dal di amal vote de confiance wala sax muy dal di exposé wu ci ab motion de censure ci contexte bi nga xam ne cohabitation moo am ci assemblée nationale.